tey nga daal di gisaat nga woote ñu gisaat beneen entourage balaa dara di xew dañ lay bàyyi nga daal waaw asalaamaaleykum ah, donc maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen nuyu yéen wax dëgg yàlla ndax ay nit yu baax ngeen. donc ñëw ngeen te lépp lu fi fësal yéen ko fësal donc man tamit maa ngi jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga joxal ma ko gaa yi nga àndal yëpp ok bébé Eva bu édition yu bari jàll na mais ak édition bi ñu visage collaboration ak Kaay Ndogu lan moo waral loolu. waaw Kaay Ndogu nag mooy li leen waxoon keroog rek parce que dafa rafet dañoo ànd euh, ci kooru ren bi donc di ànd di distribuer ay ndogu mu rafet. ma pourquoi pas. li BBEVA di organiser waat beneen équipe wala di wutaat beneen équipe pour pour ñu organiser ko comme kaay ndogu boobu ba tey ñu ngi ko ànd mu rafet donc def nañ ko le 17 mu rafet ñu def ko le 30 mu rafet pourquoi pas le premier ñoom ñu ñëw gunge ci BBEVA ñu doon nag ay nit yu baax yoo xam ne wax dëgg yàlla fu mbir mi egg rek ñoom la parce que ci suba ba tey la ñu bàyyi seen lépp ñëw fi ku fi mel ni bébé baas lu ne nag wàccee nañ ko fi waaw lu ne wàccee nañ ko fi wane nañ ni mais comme niñ ko defee woon le 17 noonu lañ ko defee le 30 noonu lañ defee tamit le premier sama xarit bii rek tey lu nekk wàcce na ko fi jox ma xaalis bu bari donc ñoom ñëpp ñu ngi wane que ni ñu ñëpp ñoo fàtte ñun ñëpp ay sœur lañ donc maa ngi leen di sant ba ci suuf ku da ngay juum képp ku sol ci setukaay ndog rek nga ñëw ak nga ñàkk ñëw Weva mi lay sant di la gërëm. Euh, édition bi passé ñu ñoom Ndaayaan ñoom Mourou Mbacke ngi fi ndaayaat mi ngi fi Mourou Mbacke mi ngi fi waaw daaw boo gisee loolu noonu kaay ndogu daaw amul woon kaay ndogu amul woon donc ma defaroon ay t-shirt ñu ñëw ma ni comme ñoom ndaayaan ñëw nañ te tey am na koo xam ne yàgg na bëgg ndaayaan te mën mënu ko gis donc mu tesee ndaayaan ci tali bi ndaayaan jox ko benn mburu donc dina ndogu en plus dina doon ndogu plus parce que ki mu gën a bëgg ci àddinaam la dajeel nga dajeek ñànku ñànku jox la mburu nga lekk ki nga gën a bëgg sa àddina moo la jox mburu donc looloo tax daaw mu demee noonu dama defaroon ay t-shirt mais comme am naa waa kaay ndogu te lakostu yi mi ngi fii xale yi disponible nañ donc loolu moo tax gisaatoo leen ñoom ñu organiser mais teewul ñoom ñëpp ñu ngi fi. ñu ngi dégg waaw kooku nag sama xarit la sama yaay sama xarit la sama yaay sama xarit la waaye lépp lu mu wax ci man rek que moom moo ma yar ci loolu noonu waaw parce que sama yaay ku ma bëgg la. ku ma yërëm la ku ma jàppale la ku ma épaulé la sama yaay lu ma bëgg rek moom bëgg na ko ba tax na man loolooy tax peut-être euh, des fois damay damay jomba def lu bari ndax man koo xam ne dalaa jur ba pare te du xëccoog yow koo xam ne dalaa jur ba pare wóolu la koo xam ne dalaa jur ba pare amul ci yow xel ñaar donc yow tamit da ngay am lu bari loo xam ne da nga koy suuraalee moo tax man fu ma mënti nekk ci sama àddina damay bàyyi xel sama yaay waaw parce que du nday du nday bu ma sonal parce que fii àddina la gis nañ lu nekk gis nañ nday teg doom loo xam ne mënu ko ba boo génnee di def loo xam ne neexul suñu borom mais ku ma jàmmal la barki Seydina Muhammad sama yaay ku ma jàmmal sama xarit la donc sama complice la sama lépp la moom bañ na ko ba amul jëkkër man maay jëkkëram loolu laa koy tooñee chaque jour moom man maay jëkkëram dañoo juum man ma sori sama yaay te àdduna du neex ba ma sori sama yaay te wax naa ko euh, y a des yoo xam ne du du ci réseau laa koy waxee parce que sama vie privée la parce que tey dama koy waxaat dama koy waxaat parce que man dama juddu xam ne dama war a baax ma baax man dama juddu xam ne dama war a baax ma baax mais man aw ma sensu pour nekk ak yaay sama yaay jamono bi laa am sensu nekk ak moom sax ba xaw a yenn affaire yi parce que sëy yàlla moo koy tudd yàlla moo koy moo koy jeexal sama yaay ak sama papa nekkoon nañ donc tàqalikoo nañ sama yaay mi ngi doon nekk keneen sama papa mi ngi doon nekk keneen man su ma doon bon ci jamono boobu laay bon. donc non non sama vie privée la ak li ngay wax ni bokkul loolu du vie privée. mbir am na fu muy toll nekkatul vie privée foofu du ma fa dugg te du ma fa xuus maa ngi woon ci sama mbiru yaay dama ne man Bébé Eva su ma doon bon wala ma yées loolu yàgg na parce que tolloon naa moment boo xam ne gisuma yaay ju naan ma déet gisuma papa ju naan ma déet te keroog laa gënoon a baax rawatina jamono jii àddina mën a doxaat ba ma mën a jot ci sama yaay nekk ak moom mu naan ma defal lii defal laa kon man am na loo xam ne jombale naa ko sama bopp te barke alxuraan fu ma mënti nekk ci sama àddina dama jàpp ne sama yaay ci sama wet donc naan demal nga jege sa yaay xamuñu li may dund xamuñu sama kër mbokk laa nekk xamuñu sama kër papa laa nekk comprendre ñu donc man dama leen di xamal que ni musuma sori sama yaay même maak moom bu ñu bokkul benn lal bu ñu fanaani chaque jour dañuy gisante. Euh, euh, euh, gis nañ waaw mu mu doon loo xam ne nag wax dëgg yàlla mooy li ma la wax day tax ma defaraat sama toogaay. parce que man dama jàppee woon sama àddina man noon laa mel dama par personnel nit bu simple laa jàppee sama bopp nit bu oyof laa jàppee sama bopp ba tax na lii nii peut bu amul woon suba mën naa juum ci loo xam ne sénégale yi dañ ma ciy xeeb mais man li am nii daf may jàngal ka ni man dama war a defaraat sama toogaay te gis naa leen ñoom ñëpp gis naa commentaire yi gis naa vidéo yi gis naa leneen ak leneen mais nag su ma kontaanee ba pare teewul man Bébé Eva damaa war a defaraat sama toogaay xam ne carrément juum waruma donte nag ñun ñëpp suñu borom ci suñu borom lañ jóge te yàlla rek moo dul juum mais man xam naa ne damaa war a defaraat sama toogaay te bi loolu amee laa judduwaat man Bébé Eva waaw parce que damay bañ a juum damay bañ a juum parce que dama gis ni ma sénégalais yi ni ma yëpp def appel yi 400 nangam appel laa am barke alxuraani karim ci yu ma jëlul. est-ce que nekkul Eva dafa dafa jot euh, mën naa ne dafa yéex a yeewu parce que man coow li dèjà yëg naa ci lu bëree bëri. Mhm. dafa yàgg loolu sax. Mhm. que nekk da ngaa a yeewu. non du yéex a yeewu euh, benn instant bi baax na mais benn instant lu ma rëccu la ci sama àddina xam nga lu tax ma rëccu ko man kenn xamuma ci domaine boobu man kenn xamuma ci domaine boobu et pourtant man euh, man li may def mu baax moo ëpp li may dinaa juum nag parce que nit laa mhm. mais li may def mu baax moo ëpp li may def mu bon et pourtant chaque jour man li baax li may def du feeñ de man maa ngi dem ci prisonniers yi du ngistal du dara nag maa ngi dem ci prisonniers yi maa ngi dimbali néew di doole yi maa ngi def ndogu comme nii di ko jox jaamu yàlla yi mais du doxaat ba am retour ci loolu mais yàkkamti nañ nga juum ci benn affaire chaque jour dañ koy dëkkal ci say nopp pourtant sortie bi am na ñu ci d'accord am na ñu ci d'accord mais man de ma part dama cee d'accord parce que dafa am loo xam day am yamuwaay te foofu la yamoon donc génn naa wax naa ci pare naa ci du ma ci ñëwaat parce que man lu xasa jàll ci sama ginnaaw du ma ci ñëwaat euh, beneen bi ci topp mooy que damay jéggalu sénégalais yëpp di baal baalu àq ndax nit jooyal na la te xamu la nit jooyal na la te juru la donc damay jéggaluwaat sénégalais yëpp bu baax a baax a baax a baax di leen ñaan ñu jéggal ma ci barke weeru koor bi waaw. wax naa la ko léegi léegi nee naa la damaa judduwaat. Uh-huh. waaw nee naa la damaa judduwaat ba pare nee naa la dama damaa toll pour ci pour defaraat sama toogaay. ci loolu laa nekk. loolu amul man ku ma xam-xam ne nit bu am cër laa ku ma xam-xam ne nit bu nit bu joxe cër laa que même bu fekkee ni sax bëgg nañ ma def loolu loo xam ne ma ko def mën naa ko wax ba mu rafet te duma ci ñaaw mais du ma nit buy dàq nit wala may nekk nit buy toroxal ne man yaruñu ma ci loolu waaw. sa relation ak Mame Ndiaye Savon gis nañ guddi yi ci li mu nekk ñenn ñi naan Mame Ndiaye ca prison bi ñenn ñi naan dafa voyagé et tout ba waaw maam maam daa voyagé. maam daa voyagé ndax gis ngeen léegi léegi bi ma yoree Serigne Fallou mu ndaw man bu maam ñëwul sax bu Serigne Fallou. Euh, loolu duma ci wax loolu duma ci wax loolu duma ci wax dama woote ay ndogu dama woote ay ndogu ndogu yi jàll ma woo Ndiogu Afia pour mu ñëw santale ma Serigne Fallou li nekk ci sama ginnaaw nekk na ci sama ginnaaw fi mu ne li nekk ci sama kanam rek laay focus. mais ci changement bi ci boo xoolee Mouhamed Alla tey ñu gis ni waaw Mouhamed Alla sama frère la maa ngi koy nuyu di ko ziaraale euh, moom tey dafa am ay jàng Tiwaawan de un deux ren décidé ma woon pour def ay jàng ndax ku ne xam na ni ci ay tournage lañ nekk te gàlle no stress ci biir koor lañ koy tourné abaa mi fi jóge léegi du du mën na ma mat na ma seede ndax moom mii di wax ak yéen nii mu fi jógee nii tournage la jëm man jàng yi lu mu guddee guddee guddee ba ma paree sama valise ngi fii damay continuer dem tournage parce que dañuy liggéey donc ren dama ne woon defuma benn jàng mais ñoogu affaire sëriñ Falloo ma booleeg moom ndax moom taalibe sëñ Fall la bi ma gënee nekk xale ma daan dal ci moom màggalu Touba mu woo ma téléphone biñ ne jàng yi des na presque une semaine ndogu yi bébé Eva bu ñu ndogoo ba pare lan nga programmé ma ne ko programmé wu ma dara mu ne ma may naa la ay cant ci doolay sëriñ Fallou Mbacke dama koy jël mais doonul woon lu ma programme mais Ndiogou ak ak ak Mouhamed Alla Diop ñëpp benn lañ bu Ndiogou jàngee mel na ne Mouhamed jàng na bu Mouhamed jàngee mel na ne Ndiogou jàng na te man xam naa ne su ma doon defaat ay jàng décidé pour def ay jàng Mouhamed Alla Diop moo koy jàng Mouhamed musuñu jote musuñu jote waaw sama càmmiñ la fi nga dugg nii baax na Mario mbay sama càmmiñ la sama xarit la ñuy nekk man moom Ndeye Yérim Mbaye Ndiaye ASC bi ñun ñëpp di toog donc mu nekk nit bu baax barke allah ji Fallou Mbacke Fallou aw bu so rek laa yaakaar sama téléphone bu ma jege woon dama leen koy woon xaalis bu bari la ma jox Mario Mbaye bu bari la ma jox barke allah ji Fallou Mbacke te nit la boo xam ne nit bu baax la man sikk yi ñuy wax ci Mario mbay man bébé baa xaw ma ko ndax man nu waay ànd man mën naa koo ànd ak yow waaye nag mbaax rek la ma wan taalibe Serigne Saliou Mbacke boobu xaalis bu bari la ma jox kon Mario bu tàntee ngeen gis ci bébé ba war na ah question bi waaw man la musuñu xuloo Mouhamed Alla Diop musuñu xuloo te duñu xuloo ci àdduna kooku sama càmmiñ la mais xarit bu bees dañoo gis bébé baas ak équipe boobu mu ñëw ñu gis ni dafa puus ñu bare bare lan moo waral changement euh, bi. gis. bébé léegi mu nekkaat sa xarit ñenn ñi sax ne nañu jalousie moo am ba nga puus ñenn ñi bébé baas. Bébé Bass du sama xarit mais sama sama équipe la bokk te sama nit la ndax tey nit nit dina la mënal loo xam ne sa xarit mënalu la ko moog ñii dama leen a jàpp parce que man waa Zara dama leen a jàpp xam nga lan moo tax man sama bés bii rek laa am man sama bés bii rek laa am man ñaari bés laa am sama àddina muy sama jour anniversaire ak bés bii may jël ay ndimbal di ko jox jaamu yàlla bés bii may togg ay lekk di ko jox jaamu yàlla ñaari bés yi rek laa am te bu ci nekk mosuma ko feete lii ndogu laay def su ma xëyee ci suba ga dem ca prisonniers yooyu yóbbul leen li ma am sama sama anniversaire man bébé ba suma ko feete chaque sama anniversaire wàccee kaamin laay def chaque sama du ngistal du dara mais donc yoon bii ñu nekk mooy dëgg yoon bii nii ñu nekk mooy dëgg ak noo ko mënti defee parce que lu nekk ngay dégg nii nga ko defee nii nga ko amee mais tey amee nga ko nu nekk teewul sa xel dem ci kër nga jël ay lekk joxe ko lii kaay ma wax leen ku nay mënu ko borom xool bu ndaw mënu ko te barke allah ji fàllu Mbàkke samay nitu personnel ñoo ma ci fekk du maire du président du kenn ku ma jàppale tey mooy sama deuxième édition te chaque jour tànk kanam rek laa ciy gis waaw. nii dañoo nemmeeku ay ci li xam waaw euh, am na ci ñoo xam ne nag am na ci ñoo xam ne yëg nañ mais am na ci ñoo xam ne yëguñu parce que man bébé ba mooy li ma leen wax guddi yëpp ci ay tournage laa nekk yàlla xam na ne am na ci ñoo xam ne bu doon appel la ñuy xaar pour ñëw tey doo leen fi gis mais ñu ci bari affiche laa leen yëgalee ñu ci bari dañoo gis ni dañoo war a ñëw ñu ñëw yaa awa woo na ma dafa am empêchement xale yee ay doomam lañ ñoom la yebal ndax Fatima mais doomam la donc li nga dugg ci ay affaire appel sax moo tax ma ma wax ak yow noonu wax dëgg yàlla moom tamit mu def li mu mënee te li ko empêché man xam naa ne loolu moo am donc loolu la rek ku ngeen fi gis yëgal nañ ko xëy na temps bi moo xat rek waaw. yow taxawaay bi wax naa ko sànq moom sama xarit la eh sama yaay sama xarit la man sama yaay sama xarit la man parce que ci këru famille laa nekk mais nag kenn jëppiwu ma ci man duma ne sama këru famille dafa métti parce que li dal xale yi dalu ma man sama rakku yaay ñoo ma gën a bëgg sama yaay barke alxuraanil karim samay rakku yaay ñoo ma gën a bëgg que ni sama yaay mais man sama yaay sama xarit la ndax. bi ma juddoo ba ni ma màggee ba ni ma tollu moom rek laa xam euh, absence su kenn mën na maa bañ a manqué waaye présence su kenn it mën na maa bañ saf naa am sama yaay rek moom sama xarit la ndax jigéen bu mën góor la. lu ma dund ak sama yaay bari na de waaw bari na de bari na de bari na de. moo tax ma ne la jàmbaar la eh, sama yaay jàmbaar la ndax tolloon na tolloon na moment yoo xam ne métti woon na torop ñun ravitaillement bi ma njëkk a jëndal sama yaay ndoxu taw a yàq ceeb ndoxu taw taw ba kër gi taa suñu bagage yëpp yàqu kon tey moom lu mu am rek mérité na sama yaay jàmbaar la sama sama sama xarit la man bi may liggéey di jox sama yaay ma ci aar min daan sax liggéey naa ko barki Seydouna Muhammad sama sama doomu sama doomu nday yii nga xam ne yaay laa bokk ak ñoom seen papa génn àddina sama yaay war a luwee tollu ma neen barki alxuraani karim boobu bu ma amee 17 ans wala ma am 15 ans ci lay toll ma ni ko luweel chaque weer ma di ko fay di liggéey min daan man ak sama rakk bi gaañu Fatima moo topp ci man muy fayee ko 25000 may fayee ko 25000 sama 25000 la ñuy fayee location 25000 Fatima la ñuy jëndee dund kon tey sama yaay lu mu lekk war na doomam ku ko joxoñ war na man man su ma amee damaa war a am barke allah ah, ji fàll waaw waaw li des ci sama àddina nag bugguma ko waaw bëggatuma ñu dégg ma ci dara même bu ma amee naqaru àddina dinaa ko muñ même bu ma amee lu ma naqari ci sama àddina dinaa ko muñ parce que man damaa man damaa war a muñ ndax nday muñkat laa am sama yaay muñ na lépp donc man damaa war a muñ mooy li ma leen wax sànq dama ne leen def naa sorti ba pare réccu ko parce que dama war a muñ waaye muñ naa nag akama muñ du ci cadre boobu noonu sax mi wax waaye man dund naa lu nekk sama àddina lu ne loo xalaat ci lu métti rek man dund naa ko ci ñaar yi laa jaaru prison ak def lu neexul suñu borom mais leneen loo xalaat ci lu naqari rek man dund naa ko donc sant yàlla moment bii nii ci moment sant yàlla laa toll ah. sama dernier moom waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek jërë ngeen jëf.